kon naa bu ko defee comme oustaz ñëw na ah te nag ku ne xam na ni boo nee oustaz Ndaw xel sëñ Fada lay def yaakaar naa sëñ Fada bu fi nekkoon bu fi dee ñëwee moo oustaz Ndaw ñooy am te ku ku ñëwoon daaw ci gàmmu gis na bu baax la may wax sëriñ Fata waxuma kon bi sax waaye képp kuy dund diine oustaz moo fa nekk loolu bëgg a jàng ci xam-xam ci alxuraan boo demee dañuy tiitaroo moom seen tabaay ñoo def te nag ku xamul nag yaa xamul waaye suñ fataar ku dëkk ak moom yow loolu rek doy na la waroon na doy nga toog heure boo mu war a am ci yow fatiha salatu fatiha nga ñaanal ko yàlla gudd fan ñaanal ko yàlla wér ak sutura ndax moom ñëw bu ñu ñëw ci biir koñ koñ dañ naan xam nga li muy yàlla yi mu fi amul woon kenn du gis kenn moom li muy yàlla ci biir koñ koñ sëñ Fatou Sarr du ma kenn waaye nit ñi xam nañ dañ ko jiitaloo te fu ñu mënti dem boo nee seen fataar bi ñu gën a jàpp man mii dem naa ci loolu Dakar ñi nga xamante ne ñoo yor wàllu organisation zawiya boobu zawiya ma alal maay bi nekk Dakar am na ci ko tudd Salim waaye bu ma nee ma ak seen fataar la dëkk rek ndeysaan dafa mujj am ci man cofeel ndax li ma dëkk seen fataar kon kon ñun ñi nga xamante ne ñooy dëkk ñoom am nañ chance nit nag bu la yàlla mayee chance nga jàpp ne yow mii mbir mu simple ba daa fekk da nga xamante te nag ku la bëggoon kaa jege ndax kilifa gu toll ni moom wala bu mel ni moom jafe mas naa toog moom ca jamono yi ñuy jëkk a jàppante di toog di waxtaan ñu ñu ne ma ñu war a jàpp maa ma ko lëre ma ne ko man de yàlla xam na ne ma jàppee ne lu dul yàlla te gis naa ne ngay def yëpp ngir yàlla na ko koy def yàlla dogal na bëgg naa la sama waaye kon nag kon ñu lépp loo xamante ni naa la fi wax loo xamante ni dana laaj mission bi mu war a dox wala dara soo mu woowee disponible na incha allah parce que tamit loolu simple ku Serigne Abdou Adam doon xalif général day Tijaan ñëw si dajaraat ndax moom yaakaar naa ku yebu ku sañoon am lu mu am. ku sañoon am li Cité Baraba am ku sañoon am li Alimane am ku sañoon am li Nansar CFA am waaye ku sañoon am li Djiddah Thiaroye Kao ndax maire bi ci boppam terrain Maguette lañ ko doon jëkkaloo def waaye moo tax ne ay seen jotaay man de affaire bi li may nar a sama kër rek dem beneen kër ma ci jaaxal ndax Djiddah Thiaroye Kao nekkoon waaye luy màgg. da ngay ne day man ñu faral ko nii la ko yàlla dogal kon am nañ chance am sëñ Fatal am nañ chance am oustaz Ndaw ah kon nañ leen tey bu baax te xam ne ñii ñoo fi kenn diine nit nag surtout sénégalais dafa xaw a doy waar moom li mu am da koy sàggan li mu am lu baax trop ñëpp di ko wut da koy sàggane bu ko ñàkkee rek commencé réccu te réccu day fekk def wees ko oustaz jërëjëf ñëw deesalaat suñu nuyoo di dëkkandoo yi di leen jaajëfal di wax na nii la nit moom bu ngeen dëkkee dëkk bu rafet bu xew la ñu koy def yow loo mën ñàkk bàyyi te ñu dem teewal ko te xam ne bés dina soxla kon sant nañ dëkk bi yow sant nañ suñu waajur yi sant nañ suñu frère di leen wax ba guddi gi kuñ ci santaat kuñ ci santaat kuñ ci nuyoo kuñ ci nuyoo jàppal ni fii nga ñëw ci bërëb di la def bi yiw bu rëy rëy rëy rëy bu nga xamante ni raar am am ndax guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Cheikh toog fii di la tàggal yonent bi ci bindu ci bindu borom ruub kon ah sant war nañu sant nañu bu baax ci turu waa daayira yëpp waaw ah, di jaajëfal waa Dahiratoul Abrahar yëpp xam naa bu ko defee noonu rek la ñuy doxalee jox oustaz comme guddi gi dugg na te gàmm gi war naa commencé incha allah mu xool nan lay doxalee programme di sant suñu yaay yi nekk ci ginnaaw yëpp di leen ñaanal jàmm sutura ko di ñaan suñu imam yàlla bàyyi ko fi yàlla dal kaay yàlla taxawaay di ñaan suñu waajur yi yàlla sàmm leen te defal leen jàmm ak sutura bàyyi ma xeex si suñu bopp yàlla na yàlla yàlla أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الخبير من الشيطان الرجيم ومن التكلف ما لا يحسن ومن التعجب ما يحسن الحمد لله الذي بنعمته تتم السالعات والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات وعلى آله وصحابته أولي الفضل والبركات ورضي الله عن شيخ السيوطي خطب الأبطال وممدهم مولانا أبي العباس أحمد بن محمد النسائي التجاري ورضي الله عن وارثه أبي أبي بكر ومنصور وعبد العزيز وحبيب الله مولانا سيد علي مالك رضي الله عنه أما بعد أيها الإخوة وأولاد الأخوات الحاجين والحاجات نحييكم بتهيئة الإسلام الأعلى وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيابة عن إمامنا وأبينا مختار جاي وعن مقدمه عبد العزيز سالم الهمة العليا محمد فتاة سعد فعين القلوب والأسماء والأبصار لنحيي معكم هذه الليلة ليلة مولد رسول mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen nuyu nuyoo lislaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuhu rabbi salaam lam tarkul iqaama farata rek mooy nga xam ne boo ko defee mën nga ci jëlee tiyaaboo bu la dugal aljanna waaye boo ko def bàkkaar lan la ci juddoo bu la ko yàlla baalu bu la mën a dugal ci kër safaan ñu ngi leen di nuyu waaye nuyu la boo xam ne ciy wuutu wala nuyu la boo xam ne nuyu imaam Maxtaar Jaay la ak Mahamadou Fata te nag ku nekk da nga toll noonu la suñu jiraay toll moo tax ñoom nuyoo xol nañuy nuyoo xosra boo waxee nii nga foog loolu laaj la waaye lan la allah kon man boo jógee allah woo allah waral la allah waral kon man bii 66 la parce que man jox ma ko sax muy 66 66 fois allah satan al-ardu qafala san la wala ba wala sawtara doola di satan kon boo jëlee loxo joxoo ko loxo sa xol la ko moo tax ñu tuddee إن الله لا ينظر إلى نسائكم وإلى رسولكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم mu ne yàlla xayma ñu ngi ci seen jëm mu ne jëm doomu aadama ji benn njëngëm nga ci bu yiwee rek jëm yiw yiw kon mooy woon mooy yéeme kii du soxla waaye saxal ko لإضاءتها فلأتى على الإنسان هين من ادعى لا يكون شيئا مشكورا لا يريد بعدها فابن الذي يدور على الجمر تنزع دائما يخرج إليه من لا يعلم بنوس لنا من الدورة وسنة yàlla bind doomu aadama loolu nag boo liggéey ne sa xel da ngay xam ne kon lu tax yàlla rafetlu noonu ci xel la nga rafetloo yàlla dana xaar lépp la sotti ci tax mu bind adduna mu ne ko dama la jël adduna allati asana كل سيء خلقه وبدا خلق الانسان من فيه الله لولا تشيخ بن لولا بإذن الله سبحانه وتعالى بكل بطل لأنه معك عندنا kon lu nit a def ci guddi gi bu ko amul def yéena moo sell kon yéen a la julli tay bi téye lépp la mu ngi wa niyatuna shartun bi saari amal bi assalaamu wal fasaadu lil amal ci yéene la lépp di yiwee waaye tay lépp di ma jox leen ci benn exemple dafa am ñaari mbokk kenn ci aajal la mooy ku mën a jaamu yàlla lool kenn ci jabbaar la ku mën a mooy yàlla waaye ak ci yàlla bi gërum ngi jëwoo dana seytaane iblis te jullit lu mu bëgg mu doxoo yàlla kat muy njiiju daje ak iblis benn bés bu ñu tël na ko yow sa bakkan am na àq ci yow benn bànneex ci bànneex bi ko jox sa sa jëmm ci am nga àq ci yow amul benn àq boo xam ne joxoon bi sa jëmm ji ngir woor yi te yow war ñett fukki at ñeent fukki at nga dund kon dese nga ñeent mu ah, kon xamul koy def fekk kër étage la ñu dëkk ñoom ñaar ci yéen rek moo tax mu lay lay gis mu ne xam nga kon koy def ñaar ci at yi damay jox sama bakkan àppam jox sama jëm bu àppam wa arma fa amma man taqaa wa aatara raayata dunya fa inna al jarima fekk Iblis da koo pexeel da ko pièce yàlla ne wala tadri nafsun maa taxdau xadda wala tadri nafsun بأي عين تموت mu ne kon ñaar fukki at yëpp damay jox sama bakkan akam jox sama jëmm akam mooy kon jaamu yàlla gi dama koy bàyyi kon nag gannaaw sama mbokk bi. moom mboolem barabam yi ñuy bonee xam na ko xam ni ñuy bonee xam ñiy bon kon damay dem ànd ak moom di bon ñaar fukki at yi bu jeexee ma tuub yéen ñaar fukki at yi bu des ma tuub yëpp ma man mi ngi suuf. Touré wax na ko bépp mandarga bu ñaaw rek boo xam ne lislaam gërëmu ko ak man yàlla mbooleem bàkkaar yi tontoon mu yeewu picc ne dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bon na ñeent fukki at waxuma julli waaye na yàlla mosul gërëm mosuma ko def xam nga lan lay def damay yéeg ci kaw fekki sama day jaam moom jaamu yàlla rek la xam xam na ñii ma àndal moom ñii jaamu yàlla la dee mbokk ma ne xam nga damay def damay bàyyi jaamu yàlla wàcc fekki sama mbokk mi ñii ànd na mooy yàlla ñaar fukki at bu jeexee ñu kii di yéeg kii kii wàññi tànkam jirise mu daara dal dal ko mbokkam bi ñu ànd nañ daal di deel kii yéena mooy mooy yàlla kii yéena mooy jàng yàlla laaj naa nga la taw sëñ bi maanaam suñu mar ala ala سيبعث المرء على ما مات عليه كل ما يدعي بوي ديك لا لا لا يلا kon gis nga foofu boo fi xoolee ne gis nga yéen a mu am kon rafetal leen yéen yi lépp lu ngeen amul rek ci guddi gi yéen a ngi ñàkk a sell wala illa btixaa wajhi rabbika ala moo di si dafa bii noonu dafa am kon na yéene yi sell bu ñu sellee rek lépp loo xam ne bëgg ngeen ko yàlla dana leen ko defal waaye alaaji léeg-léeg nga gis mbooloo bu la yàlla mayee nga xam xam da ngay ne jëf ji di jëfu basira dafa am lu ñuy albasaru am am lu ñuy albasira basar mooy gisu bët waaye nag xool na ci loolu su xel leen di xalaat la ba yegg ci ba jëf ko ne lii jëfi xol la mooy seet te yàlla juróomi yëf la ñu bind li yàlla yi bind bind li mooy bëri bëri ñu def yàlla yi jënd juróom insaanun xayawaanun jamaadaatun aha nabaataatun aw shay'un ma'nawi juróom yi amul lu ci mën dal ko yonent bi sallallahu alayhi wa saa yu wàllu andi na yëpp ci xilaaf saab waaye xaaral yi yàlla am ñetti aalam yi nga xam ne ñu ci gën a mag ëmb yeneen aalam yëpp amul aalam bu ci màggal bu gën a jëm sax al mulku maa yabdu lana kal hayawaati wal malakut ma bil qaybi kal jidaani wal jabaru ma bil qaybi qaybi salaasatu atta tëbu dara xaaral bi yàlla am yëpp màggal leen ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aalamul mulku mooy lépp loo xam ne bët mën na ci tege muy suñu alal adduna bi moo doon daj tey boo demee wax boo dem réew moo dem ñu ngi def ay tànt di màggal bu biir ci saa saa waaye alal yi nga xam ne gisuñu ko mooy alamu malak yi si ay ñaari nekk sal dinaanu niñ ubbee bunti aljanna ubbee ko bunti asamaan naan niñ buñ bunti asamaan yi noonu lañ bunti asamaan bunti aljanna yonent bi saa sallam guddi gi nga xamee ne ni leeram bi bàyyi koo na ci bàyyam yaayam bunti asamaan yëpp dañu ubbi loolu mën na weesu bunti aljanna yi dañu waaye leer weer weer wi yàlla dina am ko yeneen màggaay ak yeneen leer yoo xam ne du jiitu am kon te leer wi weer wi mooy leeral jant bi mooy leeral jant bi kon yàlla leen yàlla fay yéen ñi taxawee ah ak mën su ko defee dañuy wax ne fa in tasaama adadul masaali yuqaddimu al ala min al masaali dañ ne ay mbir bu dajee ci yow xoolal ba ëpp yiw nga jiital te sa dëkkandoo boo ko defalee ñaari fay jàmbur bi nag buy moom mën nga am benn pay loolu laltaay la ci li mu bëgg wax mooy ci guddi kat mi yàq bu ñu doon def maag seen cheikh nii la am ay mbokk yu sàkk ci ñun ñu defal leen ñu foogoon ne ñëw yéen ko benn barab moo tax ah duñu dugal ba ndax dañuy mos rek ah, ah, ah jox suñu mbokku Cheikh yi Ahmad Tidiane mu wuutu ñu ci dañuy wax ne léeg-léeg nga ñëw ci barab yow ñu ñëw ci barab ba nga fekk sa bopp. man nag ay bokk laa mooy Ousmane rek ñoom si rek daal ñu naan bu ñu ñëwoon fi ñëwuma sax rek rek rek kon ñu ngi ah, mu mel ni tey. xilaas saab gannaaw bu gëmee tey tam ci xilaas saab la ñu ki see dugg ak yéen nag mooy suñu mbokk Cheikh Tidiane Ndao ayyadahullahu wa raawu wa nadara wa jaala lahu tafhima wa taqina wa taata kilaas nag li téere na ko ëpp waaye lim dajale dana jafe nga fekk ci ni ci yonent bi am lu bàyyi beneen ñëw wax leneen ci beneen ñu wax leneen ci yonent saa yu yonent bi sallallahu alayhi wa ni ci xilaas bi néew na beneen téere bi yóbbu ci su ko defee du jaar ñu jéem ko ah ñun ñëpp rek ñu ànd déglu ko mu duggal ñu ci xilaas tey moom jarul taal na fi nit dugg rek ci xilaas bi ko baax kon yaa Cheikh Ahmad a ah, yàlla na la yàlla dëgëral yàlla la ah yàlla sàmm la nga man ma dem feneen wuti leen fa ah ngeen wuti ma fii waaw maa laa yóbbu kullahu laa yóbbu ko kullahu loo mën ta joxe léppam warul tax nga ba léppam boo koy def ca am loo bàyyi macha allah ñu ngi leen waaye nuyu la woo xam ne dañ ciy wuutu wala nuyu la woo xam ne nuyu imaam Maxtaan Daay la ak Mahamadul Fata te nag ku nekk na nga toll noonu la suñu jiraay toll moo tax ñoom nuyoo xol la ñuy nuyoo. Osman boo la joxee lii la allah kon man boo la joxee allah nga jox ma allah lan la allah lan kon man bii 66 la Osman jox ma ko sax muy 66 66 fois deux lan cent al albu xaafaral la cent laam lan la baa lan la cent trente deux wi di cent trente deux kon boo joxee nit loxo ko loxo sa xol la moom moo tax inna allaha la yanzuru ila nisaikum wa ila rasulikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum mu ne yàlla xoolul jëmale ci seen jëmm yi waaye mu ngi xool jëmale ci seen xol yi mu firil ñi ko ne iza inna fil jasadi mudghatan iza saluhat sallu baax sala baax la waaye boo mu daal daal la les lu sala mu daal daal la les lépp mu ne jëmu damaa tax gi benn lum ci bu yiwee rek jëm jóg kon bu yiwee nit ki du sa loxo ko ko jox waaye sàngal moo ko jox gannaaw loolu doomu aadama bu am xel booy wut dara la lay doy la ngay wut ak la la koy xañ war nga ma waxaat amul kenn ku kenn di wut dara lu dul la koy may mooy mbëb ak la ko tey fii te lépp lu am ci dund rek yàlla loolu doomu aadama tax yàlla bi dana doomu aadama hal ataa ala al-insaani hiinun mina ad-dahri lam yakun shay'an mashkuuraa junni la ñu ne daw na ba cinq heures yàlla dina doomu aadama loolu la boo kon lu tax yàlla defal loolu ci xel la lay wax mooy yàlla dana xaar ëpp ci tax mu bind adduna mu ne ko demal dem allazi ahsana kulla shay'in xalqahu wa bada'a xalqa insaani min tiin amul dara la ci ëpp ma loolu la ko yàlla subhanahu wa taala bi bind ba pare la doomu aadama dama kon lu ñu tay ci guddi gi bu ko amul moo sell kon yéena la julli tay wuti lépp lu wëlu wa niyatuna shartun li saa'iri al bi as wal fasaadu lil amal ci yéene lépp di yiwee waaye ci lépp di ma jox leen ci benn exemple dafa am ñaari mbokk alxaaj kenn ci aabid la mooy ku mën a jaamu yàlla lool kenn ci jabbaar la ku mën a mooy yàlla waaye jaamukatu yàlla bi da doon ngéejowoo dale seytaan iblis te jullit lu mu bëgg mu dogoo rek yàlla fekk muy wéeju daje ak iblis benn bés ak iblis da tël na ko yow sa am na àq ci yow amul benn bànneex ci bànneex yi boo jox sa sa jëmm ji am na àq ci yow amul benn àq boo xam ne joxoon ko sa jëmm ji ngir woor yu bëri te yow war nga dund juróom-ñett fukki at ñeent fukki at nga dund kon dese nga ñeent mu ne ah ah ah, ah. dese naa ñeent kon xamul lu may def fekk këru étage dañuy dëkk ñoom ñaar ci yéen rek moo tax lay réglé sa bi mu ne xam nga kon def ñaar fukki at yi damay jox sama bakkan àqam jox sama jëm bu wa amma fa ammaa man taqaa wa aasara al-hayaata ad-dunyaa fa inna al-jahiima fekk Iblis da koo taxee da ko pièce yàlla ne wala tadri nafsun maa daa fi muqaddas wala tadri nafsun بأي أرض تموت من كل ñaar fukki at yëpp damay jox sama bakkan akam jox sama jëmm akam mooy kon jaamu yàlla gi dama koy bàyyi kon nag gannaaw sama mbokk bi moom mbooleem barab yi ñuy bonee xam na ko xam ni ñuy bonee xam ñiy bon kon damay dem ànd ak moom di bon ñaar fukki at ma tuub yéen ñaar fukki at yi bu des ci ma tuub ko jàmm yàlla meneen bokkoom ne man mi ngi man di daanu am suuf tuure ndox boppam bépp mandarga bu ñaaw rek boo xam ne lislaam gërëmul ko ak man yàlla mbooleem bàkkaar la toggoon mu yeewu pitti ne dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bon na ñeent fukki at waxuma julli waaye lu yàlla mosu gërëm mosuma ko def xam nga nan lay def damaa yéeg ci kaw fekki sama mbokk mi nga xam ne day jaam moom jaamu yàlla rek la xam xam ne ñii jaamu yàlla ma ànd ak moom ñii ma dee mbokk ma ne xam nga damay def damay bàyyi jaamu yàlla gi wàcc fekki sama mbokk bi ñii ànd da mooy yàlla ñaar fukki at bu jeexee ma kii di yéeg kii di wàcc kii wàcc tànkam girise mu daal dal ci kaw mbokkam bi ñu ànd ñu daal ñu dee kii yéenam mooy mooy yàlla kii yéenam mooy jàmm yàlla alaaji am nga lu xew sooy yubaasub mar ala te yubaasul mar'u ala ma mata alayhi ku ne la nga dee booy dëkki ëllëg loola la yàlla yi kon gis nga foofu ci boo fi xoolee gis ni yéena mu am kon rafetal leen yéen yi lépp lu ngeen amoon rek ci guddi gi yéena gi ñàkk a illa btixaa wajhi rabbil a'laa muxlisiina lahu diina hunafaa kon na yéene yi sell buñ sellee rek lépp loo xam ne bëgg ngeen ko yàlla dana leen ko defal waaye alxaaji léegi-léeg nga gis mbooloo lii di jëfu basiira dafa am lu ñuy albasaru basaru mooy gisu bët waaye xool gisam mooy basiira am na ci war a su xel yeggee xalaate ba yegg ci bul jëf ko da ngay xam lii jëfi xool xam mooy sëriñ te yàlla juróomi yëf rek la bind li yàlla yi bind li muy bëri bëri ñu def yàlla yi génne juróom insaanu xayawaanu jamaadaatu aa nabaataatu aw shay'un ma'dani juróom yi amul lu ci màggal yonent bi saa saa yi maa ngi indi la yëpp ci xilaaf saa waaye xaalam yi yàlla am ñetti aadama nga xam ne ñu ci gën a mag am bu yeneen aadama yëpp amul aalam bu ci màggal bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al mulku maa yabdu lana kal aywaadi wal malakutu maa bil xaybi kal jinaadi wal jabarutu maa bil xaybi al xaybi salaasatun atat kaduna raybi alam yi yàlla am yëpp màggal nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aalamul mooy lépp loo xam ne bët man na ci tegee muy suñu alam yi na bi ba adduna daj tey boo demee gox boo dem réew moo dem ñu ngi def ay tànt di màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa waaye alam yi nga xam ne gisuñu ko mooy alam malakut Cheikh Malick nekk sal jinaaru ni ñu ubbee bunti aljanna ubbee ko bunti asamaan naa ne ubbee bunti asamaan yi noonu la ñu ubbee bunti asamaan bunti aljanna yonent bi saa guddi gi nga xamee ne nii leeram gi bàyyee koo na ci bàyyam dem ci yaayam bunti asamaan yëpp lañ ko ubbi loolu na weesu màgg mboolem bunti aljana yi waaye leer weer weer wi yàlla joxaat ko geneen màggaay ak geneen leeraay boo xam ne du jiitu te leer wi weer wi mooy leeral jant bi mooy leeral biddi bi kon yàlla leen yàlla fay yéen ñi taxawee ah bañ mën a su ko defee dañuy wax ne fa in tasaama adadul masaali yuqaddimul ala min al dañ ne ay mbir bu dajee ci yow xoolal ba ëpp yiw nga jiital ko te sa dëkkandoo boo ko defalee ñaari pay ngay am jàmbur bi nag buy moom mën nga am benn pay loolu lalkaay la ci li mu bëgg wax mooy ci guddi kat miyaar buñ doon def maag seen cheikh nii laam ay mbokk yu sàkk ci jun ñu defal leen guddi gi ñu foogoon ne ñu yenn yeneen bokk def ko benn barab moo tax ah duñu guddal ba ëpp ndax dañuy mos rek ah jox suñ mbokk cheikh yi na Amadou Tidiane mu wuutu ñi ci dañuy wax ne léeg-léeg nga ñëw ci barab yow mi ñëw ci barab ba nga fekk fa sa bopp man nag ay bokk laa fi mooy Ousmane yi rek ñoom si ak waa daara ji bi ñu ñëwoon te ñëwuma sax rek kon doy kon ñi ngi leen di sant ah ah mu mel ni tey xilaasu saa gannaaw guur nañ tey kon ci xilaasu saa ko ñor ki sey dugg ak yéen mooy suñu bopp Cheikh Tidiane Ndao ayyadahu llaahu wa raahu wa nadara wa jaala lahu wa taqina wa taxkim kilaas nag li téere yi siire yi bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri ko waaye lim dajale dana jafe nga fekk ko ci beneen téere ndax téere bii dafay wax li ci yonent bi am lu mu bàyyi beneen ñëw wax ci leneen ci yonent bi beneen ñëw wax leneen ci yonent bi waaye saa yu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ci xilaas duggee ci su ko ah ñun ñëpp rek ñu ànd déglu ko mu duggal ñu ci xilaas tey moom jarul tànn fi nit dugg rek ci xilaas foofa baax kon yaa Cheikhina Ahmada Tidiane ah yàlla na yàlla dëgëral yàlla suturaal la ah yàlla sàmm la nga defee man ma dem fee leen wutu leen fa ah ngeen wutuma fii waaw maa laa yumkinu kullahu lay ko tudd loo man fa joxe léppam warul tax nga ba léppam boo koy def ca am na